donc euh, tey li soxal assemblée générale bi dans la région de Dakar on a convoqué toutes les responsables de Benno de la région de Dakar ñu leen convoqué nag pour une assemblée de remobilisation de remotivation euh, de toutes les responsables ñi nga xam ne war nañu ñoom bu ñu leen remobiliser resensibiliser leen ba pare Euh, avant même euh, de rendre compte à monsieur le président de la république ñu remobiliser leen resensibiliser leen pour ñu dellu ci base bi parce que kat coow li coow li président de la république moo ko wax wala muy mook sama wax ko ci sama ay waxu bopp man waaye moom loolu mooy soxlaam mooy la bataille de Dakar la bataille de Dakar sera la mère des batailles parce que Dakar yenn saa yi du toujours sax waaye yenn saa yi dañu fiy néewal doole mës na ñu fay néewal doole boo xam ne bii dootuñu ko fàtteeti loolu nag la bañ mu dalaat ñu ba tax na dañu bëgg Dakar incha allah ñu teg ko ci seen loxo teg ko ci seen liggéey bu ngeen bu ngeen delluwaatee ci base bi remobiliser base bi wax ak ñoom ñu am lu ñu def et yi revenir ñu gagné à la présidence de 2019 à 80 pour cent à dakaar parce que kat saa yu ñuy rendre compte Dakar ñun dañuy sëgg tuuti parce que suñu pourcentage dafay xaw a gàtt. waaye pal googu dafa am ci lu mu lalu. dañu wax ne dañu bëgg mu falu ci premier tour. avec un pourcentage consistant boo xam ne du am lam-lame jigéen ñi nee nañ quatre-vingt pour cent lañ bëgg mën nañ koo am. booy seet sa diggante ak sa moroom ngeen baaxoo yéenante jàmm bañ a soxorante delloo seen ngëm walla sunu ngëm ci sunu borom subhaanahu wa xam ne kenn kooku rek mooy joxe xam ne kenn kooku rekk mooy xañe kon suñu ko defee dinañ yaatalante suñu diggante yéeneente jàmm muy la solidarité bi nga xam ne mooy dëgëral sunu partition bi sunu coalition bi doore ko ci sunu biir parti muy APR ñu defee loolu am solidarité nekk benn dànk dinañ am doole suñu ko deful dañuy tasaaroo te yàlla na nu ump kon nag maa ngi encouragé di féliciter madame la présidente ci woote bi nga xam ne def na ko un appel à la remobilisation mais l'appel à la remobilisation appelle une organisation organisation boobu nag wax ngeen ko ci plan d'action bi ngeen tëral